mbokk yi asalaamaaleykum yéen ñi baaxoo di ñu seetaan ci seen sit bi di Touba Info tey ñu ngi fii ci barab bopp kenn ci waa kër sëriñ Touba yi la di Abdoulaye mbay peex yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté fan yi passé dégg ngeen coow yu bëri ci internet bi ñuy wax ne dafa am ñu mu jël yóbbu leen ci kër sëriñ bi ah weddi nag gis bokk ca. Ablaye Mbaye Pekh a ngi yegg si nañ ci këram fii ci Touba fas yéene yéeg laaj ko lu xew yaakaar naa ne wax ji sax du yem foofu ku xam Ablaye Mbaye Pekh xam digganteem ak waa kër Serigne Touba yi incha allah nañu dem ñu dajeek Ablaye yaakaar naa ne am na ay kàddu yoo xam ne dina ko yëkkati ngir leeral kon sëriñ Mbacke bismillah. boole ki Cheikh ku ci woo ni la bayka mbaanaam lu di muxaddam laa di woo. ku dib alxaaji maala woo boole gi Cheikh ku ma ci woo na ni labbayka mbaanaam di leen yëgal kii ma fi gis te kii ma gis ku ko fi gis tàndul ak moom ku ko gis gënu fi mbaa saful xorom ni ngeen ma laaj ki ma fi gis sangub jamono laa fi gis ni ma laaj ki ma fi gis sangub jamono laaj fi gis sangub jamono daleen neen na ki ma bu kenn dégg jërëjëf mbokk yi kon gis ngeen niñ leen ko waxee woon yegg si nañu ci kër euh, Abdoulaye mbay Pekh wax naa leen ne kenn dootu ko présenté ti kon nag bi ñu yegsee mu dalal ñu ak waa këram yëpp macha allah ñu di ko sant bu baax a baax a baax ci lim ñu nangul lii nag ndax xëy na ñu bëri amoon nañ yéene eh, am jataay bu mel nii ak kilifa gu mel ni moom waaye yàlla dogal na xëy na ci ñun la ko jaarale ñu ànd ak Serigne Mbacke Seye ak Touba Info yëpp kon du ñu def lenn lu dul rek yëkkati kàddu gi. jox ko sëriñ Ablaye Mbaye Peex mu indil ñu ay leeral tuuti rek ci li nga xam ne nii mooy coow li nga xam ne ñu ngi koy dégg fan yi yëpp waaye ku dajeek Ablaye Mbaye Peex mënoo ko ñàkk bañ a laaj digganteem ak waa kër sëriñ Abdou Khadre boo ko laajul it dana ca tàbbi digganteem ak waa kër sëriñ Touba digganteem ak kër sëriñ Touba digganteeg ak sëriñ Mountakha mi nga xam ne ba mu toogee rek la ko woo mu bàyyi lépp kenn gisatu ko ci lenn lu dul ci liggéeyal sëriñ tubaa kon ñu yëkkati kàddu gi rek jox ko Abdoulaye mbay Peex mbokk yi bismillah asalaamaaleykum mbokki taalibe yi Cheikh maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi sant yàlla julli ci Seydunaa Muhammad sangub sang yi sant Sëriñ Tuubaa Mbakke mi tax nu tal ko ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa yàlla guddal fanam yàlla may ko wér waaye ñaanal sama bunt ci Sëriñ Tuubaa sama bunt ci kër Cheikh Abdou Khadir di Sëriñ Cheikh Mbakke moom Cheikh Abdou Khadir di ko siyaar di ko ñaanal di fedd li waat sama njëbbal ci moom Cheikh nag tey nga ñëw ci kër gi fii ci sama kër ci Touba ma sant ko Serigne Touba mi ma ko jox di la sant bu baax ci laaj bii nga laaj dégg naa coow yu bari ba tey leeral war na ci Assane si la li mu yëkkati wax ko ni maa fi indi naar bi man ku dikk fekk ma ci kër sëñ Touba ku dem bàyyi ma fi bi muy ñëw di fi ñëw Omar Baaw la àndal Omar sama xarit la ñu woo ma mu ma ne ko maa ngi Touba maa leen dëkk ci kër sëñ bi fa la ma fekk ndax diiru bu Cheikh Mamadou Mountakha toogee ak léegi wax ma ni ma ñëwal ci liggéey sëñ Bamba bii ñu ànd ko lu ma doon def banaa ko dégg nga sëriñ ma kenn dégg jotali ma lenn lu muy sëriñ Touba. ndax li ma sëriñ Touba defal ku dul yàlla mënoo ko Touba nag képp ku ñëw ci kanam sëriñ Mountakha fekk ma fi ma jottali la wax la lu baax ñépp laa koy defal. kon indiwoo leen indiwuma leen fi bi njëkkee fi lañ ma fekk keroog laa ko ma sa teg bët moo tax moom mi defoon vidéo wi woo defaat na ay ojo defaat woo di ma jégglu jéggal naa ko man duma topp topp taalibe Serigne Touba dara benn taalibe Serigne Touba mënumaa def lu ma naqari fas naa yéene it murit bu ma def lu ma naqari baal naa la fas naa yéene man du ma tooñ benn murit murit bu ma seen sëñ Bamba laay xool ci yow moo tax murit man damaa yéenal ci àll bi jéggalu na ma jéggal naa ko naari yàgg Touba. Cheikh Mamadou Lamine Baara moo doon baayam ci sëñ Baara la doon ñëw ba mu ñëwee ba sëñ bi ma introduire ko dalal ko daf ni sëriñ bi Alaaji Baara moo doon sama baay di sama sëriñ wax na ma seen diggante lu yàgg bi mu nelawee léegi nag ñëwuma Touba waaye tey li ma indi Touba mooy feddali wala réew ma sëñ Baara amoon ak sëñ Baara ma feddali ko ci yow ndax yaa toog tey place bu sëñ Baara yaa toog place bu sëriñ Touba wala réew woowu rek laay tàllal ay loxo waxul leneen. kon yàgg naa ñëw Touba. jamono Cheikh Madou Lamine Bara ba mu fa jógee mi ngi añu añu isbu tarxiya ba nu fa jógee laa dellu siwaat sa même sama kër moom mu jàll te mu sëñ Moustapha Alaaji Bara naar bi yàgg naa ñëw Touba. tey dara gën te garaaw lu tax nit di dem Touba. Touba ku fi ñëwul foo jëm ku ñëw Touba mucc. lu fi waay buub te lu dul noonu jëme si ko Touba du yàgg du yàgg kooka kooka ak Serigne Touba te du yegg si bee aar dëkkam bi nañu bay xel ni Serigne Touba moo ar Touba lu fi waay dugal lu dul noonu ci sa bopp la jëm Moussa Ka ne ku tawlu dagay ngay teex sëñ Bamba kenn mënu koo nax mais nañu nañu xoolaat seen bopp murit yi wax loolu te jamono yi Alaaji Baara la fi doon ñëw wala woowu sax fedd li na ko sëñ Moustapha doomam. tey sa kii toog te sëñ baara doon kenn sëñ Muntaxa looloo ko tax a ñëw ko moo doon sama baay rek ma ne naa la siyaar maa jottali sëriñ bi lii fa am leneen amu fa. li Ablaye Mbaye Peex moo leen fi indi tooñ na ma. ma sëriñ Touba xoolal ba mu jégal mbaaxaan xoolal tey sëti mbaaxaan yi xoolal maam gànkal maduma kuréeje maam yi sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ba muy tur fetalam yi ci kanam sëriñ Touba ba tey mu gën fi sët sëriñ tuuba ku nax ba ñëw ci moom mu segg la dindi sa téex sànni nga doonu tax mu wutti bi la def ca yëfam Cheikh Samba Diarra da ko ni bakkan bu tàggoo di waaj caafara jeex ca ki galaaj ni bisub keroog sa barke maa la gëm sëriñ bi ku faatu yaa fay jëkk teew bu ñu koy jullee nga defa teew bu ñu koy romb nga defa teew bu ñu demee nga def tontu ko layam mënu ko Samba Diarra mënu ko Mbàkke mënu ko sikkiwul bala koon nga ko xam murid yëpp dee ci wenn waxtu kuñ dugal ci yaari ko si bàmmeel ma nangu la nan génn ci sëñ Tuubaa te bàyyi kook sunu bopp kenn du wutal sëñ bi kuy ñëw ci moom man na indiw ma kenn na leer ku dikk fekk ma ci sëriñ bi ku dem bàyyi ma fi kenn du ñëw ci sëriñ bi ma wax la ñaaw ni may jottalee parti pouvoir bi noonu laay jottalee opposition bi bu ñu ma fekkee sëriñ bi ku baax ku ñëw ma ne ko mbàkk kii diwa diw ak diw nii la demee toog te dañ may woo ma toog ci wetam loolu laa doon. man géwélub Serigne Touba laa moo tax ma fas yéene ku jàkkaarloo géwélub sëriñ Touba doo ca gisu ngéwél sëñ bi nga ciy séen tabax naay juma ak i jàkka dëkk ba ma dëkk sama kër jàngu alxuraan jàngub baa nga fa ñaari ustaas laa jël kii di jàngale alxuraan kii di jàngale arab weer wu dee maay fay tund wa ak dëkk ba ko am sa doom indil du skiri sa doom du fay doo ko fayal. maay maay fay. ngir jëmi sëñ Tuubaa boo duggee ci jumaa ji ajuma ju jot ba jumaay peex ji noppee léegi ajuma jot ñu wàccee ñaari kaamil sàkk naa cinq personnes yuy wàccee alxuraan sëñ Tuubaa laay roy du ma defu ngéwél sëñ bu ko ci defu ngéwél ñu raw la tudde nañ ma ko nag man nangu ko ndax li wax yonent bi war naa am ku koy wax xoolal la ko Cheikh Samba Diarra doon wax te benn bis sëñ Thiari woo ba ma ñëw mun ma loo bokk ak Cheikh keroog daanu naa man ko ab sëtam laay denc sëtub sëñ ma tayir munu ma yé sëñ ma tayir Cheikh Sadie ko jur Cheikh Sadie ak Cheikh Samba Diarra bokk ndey ak baay munu ma yéen ñaar yaa ngi se yaa ngi Cheikh Samba Diarra da ngeen a jëmu ci sëñ bi sëñ Thiali woo ma ko wax foofa laa jëm. duma ma géwélum ñaaro gay naagu gisee suma ci ngénte duma taxaw ci ay géew di jottali du ma nanguy ndawtal sëriñ bi laa jëm Cheikh mun ta sama mbokk ndax ma jigéen taal maamam joor mbéru ak roqee mberu ak yàlla mberu mbéru kura ma jigéen taal ma jigéen taal la dëkk peex man rek maa yor ci réew mi tey fas wu ma sëñ Moustapha Bassirou joxoon ba léegi fas waa nga peex di dund fas sax du dund loolu sëñ Moustapha Bassirou moo woolu Moustahine ni ko wool ma Ablaye Mbaye mu woo ma ma ne ko maa ngi dugg Touba munu mun ma bul yegg jaari kër sëñ Abdou Khadir ñëwal ci man ba noppi doog a ma ñëw sëñ Moustapha Bassirou ni ma duggal ci wana wi yem ci fas nga fi tànnal wu neex ma tab bi yem ci ngelam bu ba nga ko womatee génn dene ne woon naa leen ngelam bu li lay jël Bassirou Fatou ma du maam ma ca mbéy mbéy bi ma womatee fas wi kër sëñ Bassirou jëm si kër sëñ bi ma daataa kay si ma jox ma ñeent fukki junni ku seen fas wi ak ko rek nga ne ku la jox wi fas nga ne sa poos fas waa ngi dund mi ngi peex loolu mooy sama digganteeg Touba jéggalu na ma nag jéggal naa ko ndax noo bokk sëriñ Touba man bu ma murit rayoon neex na man duma fayantoo ko murit man murit laa waaye nag na leer na leer lii rek laa bëggoon indi sant leen gërëm leen ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye santaat sëriñ Cheikh Mbakam Cheikh Abdou Khadir ndax sëñ Cheikh kat ci yoon la ma teg. nangul nangul ma drapé kon maa ngi koy sant moom itam maa ngi koy gërëm di gërëm njaboot Cheikh Abdou Khadir yëpp ñaan sëñ Cheikh mu Cheikh Abdou Khadir yàlla na fi yàgg Mbakke te dama doon wax rek ne sans commentaire ndax sëñ Ablaye fii mu daanelee ay kàddoom ak lii ma fi jot a dégg lenn luñ ciy wax rek vraiment amatul. kon mbokk yi yaakaar naa ne xanaa kay gàttaay wi waaye beneen yoon dinañ ko ñaan mu gën a yaatu li ma gën a marqué ci wax ji nag mooy fas wi ko Serigne Moustapha moom sëriñ Bassirou jox. sëriñ Moustapha ci taxawaayam bu am maanaa bi ci kanamu jàmbaaru lislaam ja Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu rasuul jox ko fas woo xam ne diggante bi fi Serigne mustafaa jógee ak léegi nee na ba léegi fas waa ngay dund ak teraanga ji nga xam ne jox nañ ko ko ngir jëmmi fas woowu ñu nga xam ne moom la ko mu Moustapha jox ci yoon wi nga xam ne moom la jaar di yóbbu fas wa loolu yaakaar naa ne lu am maanaa la kon ñu ngi sant bu baax sëñ Ablaye jërëjëf macha allah jërë ngeen jëf mbokk yi.